ci jamono ya njëkk dikkal kii di gisaanekat wala seetkat mbir mu jafe la woon waaye nag jamono bi moom lu yomb la ci jamono ji doomu aadama bi dafay dikkal seeti kii di gisaanekat wala njabarkat ci benn bouton rek bi muy bés message yi di ñëw ci portable yi wala ci whatsapp wala ci internet wala ci yenn journaux yi wala ci yenn programme yi mu nekk ci masala li ñuy tuddee horoscope horoscope da ngay dal di jàng ñu ne la ah semaine bii kat lii dana la dal wala da nga dajeeg diw wala yu mel noonu wala da nga tukki wala ñu ne la kat ah sa alal bu sa alal dana réer ci ndàngam ak ndàngam kon doomu aadama jamono bi muy xool ci journaux yooyu liy tuddee horoscope loolu dafay dugg ci mel ni ku dem seeti gisaanekat waaye dafay dugg ba léegi ci gisaane jox kenn sa loxo muy xool di la wax walla muy xool ci ndab di la wax say mbir lii yëpp dafay dugg ci seeti gisaanekat lan mooy atteb sharia ci dem seeti gisaanekat képp ku seeti gisaanekat dem bi muy dem rek dem bi muy dem rek dem bi muy dem rek laaj ko loolu dafay koy yóbbee ni bu jullee ñeent fukki guddi yàlla du nangu ay julleem dem bi muy dem rek ñeent fukki guddi yàlla du nangu ay julleem waaye nag buñ ko waxee mu daal di dëggal lañ ko wax weddina lu ñu wàccee ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax léeg-léeg nga jékki-jékki sa portable message ñëw ci ñu ne la bu nekkee da nga am gént bu la jaaxal yónnee ñu sa turu pap wala sa turu yaay wala sa turu soxna wala lu mel noonu dinañ la dinañ la wax gént boobu lu mu doon waaye tamit dinañ wax tamit yow yaay kan kon message yooyu bu boo leen yónnee lenn li ñu soxla rek jàppal ni ñeent fukki guddi yàlla du nangu ñeent fukki guddi yàlla du nangu sa julli waaye nag bu nekkee message bi ñëw na nga daal di dëggal ñoom loolu li ñu wax ah weddi nga li ñu wàccee ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam te di loolu mooy alxuraan ñenn ñi dañ lay wax ni ah man de dëggaluma horoscope waaye dama koy lire rek ngir passé ngir passe wala ngir foo ah liñ koy wax mooy ndax amoo leneen loo passé sa temps wala li ngay euh, passé sa temps ci lu dul bokkal yàlla wala weddi yàlla ndax yow wóoluwoo sa bopp ci fitna te yàlla kat mu ngi wax ci alquran qul laa yaalamu man fi samawati wal ardi alxayba illa allah ni kenn xamul ci asamaan wala ci suuf kumpa ku dul borom bi azza wa jal